Bamba Dièye nga don député ci assemblée nationale nekki tamit njital front pour le socialisme et la démocratie Beno Jubal ci ay jamono nga donon fi maire bu Saint-Louis waye tamit jotoon fi yor ndombay tank ministre tay nga nekk sunu gan ci grand entretien bu Jotna TV ñi ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Serigne Lamine. fan yi ñu génn. assemblée nationale bi nga xam ne doon nga fa ndaw doon càmbar sunu gafaga réew di xool koppar yi nga xam ne réew mi war na ko jëfandikoo at mii di ñëw naka lañ koy dajale waaye tamit naka lañ koy séddale ci ministères yi ak institution yi la nga xam ne tënk nañ ko fa tey ndax méngoo na ak li nga xam ne yow moom nga doon xaar waaye tamit lan mooy coppite yi nga xam ne am na ci bu ñu ko méngalee ak budget at yi weesu ci laaj bobu ma ngi ci profito bu baakha baax sant len gërëm len ci dalal gi ngeen ma dalal ci Jotna TV di am mbégte lool di waxtaan ak doom Sénégal yi nga xamné yépp dinañ ci sétane li jëm ci walu assemblée nationale nak dafa am ay taxaw sétlu bo xamné dama ko bëgg a def balaa ñuy ñëw ci laaj bi assemblée nationale dafa am ay mandarga yu bare yo xamné ni daf ko wara am pour mëna nek lo xamné day saxal jamm di topp koom-koom gi di seet nañ la ñuy jëfandikoo alal yi ba pare nag di indil réew mi ay tëralin mu ay loi yoo xamee ni dina méngoo bëgg-bëgg ak yéene askan wi bu ngeen ko seetee législature bi ba mu tàmbalee ba léegi dafa am gaañu biir ba mu tàmbalee dafa am ay principe yoo xamee ni député ci lay taxaw pour mën a def liggéeyam muy immunité parlementaire am gis ngeen ca jamono yooyu ni nga xamé ni non lañu mépriser li droit fondamentalu ab député ci taxawayam té lolu mi ngi am ci premier jour ouverture assemblée mu don signal bo xamé ni day wone ni assemblée bi ni mu def par rapport ak Khalifa Sall kon xawna na ni li dess ci mandaawam yépp intérêt yi réew mi pas-pasu sénégalais yi défendre intérêt réew mi alal ji du itém liku ko gën a moy pare na dès le départ def lo xamé ni nak sudul noonu la taxaw fo xamé ni ken xaru ko fa di jëf lu ñaaw lu mengowul ak ben yoon rôle ak mission yi nga xamé ni constitution wu Sénégal jox na ko bu ngeen xolé nak toftalé budget yi boko ko depuis 2012 ba fi tay ji lu xawa jégg ci 30 000 milliards dépensé nañ ko ci ay autorisation yo xamé ni assemblée nationale moko def ci loi de finances. at wu nekk même tendance même taux de croissance même taxawaay même jëf Ta at bu at wasa top, indi ay jafe-jafe ci de kouaï, jafe-jafe ci wàllu certitude ci sénégalais yi ni réew mi dafa am Mamadou ak Mamadi certitude ci réew ni amul ben yoon bo xamee gouvernement au Sénégal mi ngi pour défendre intérêt sénégalais pour faire corruption surtout pour indi transparence ci li nga nous avons la réew mi ñu war dépenser Covid 19 ñu doon xaar ni budget assemblée nationale dina mengo li nga xamé ni tendance économie mondiale ak crise bi nga si suñu biir réew mais même taux de croissance yi même progression ñu ngi wax nan sax sen budget ren jii yok nañ ko de 373 milliards mo mel na ni dañu nekkon ci ay conditions yu normal ak situation économique bo xamé ni amul ben aléa bo xamé dina ko yàq wala dina ko delloo gannaaw et pourtant 1000 milliards et quelques dugal nañ ko ci adina yépp d'accord nañ ko ni l'économie mondiale est quasiment en récession kon nak mom la taxawé wax ko ministre bi ni ko man day bama xolé ni. li àddina di dund ñu dund ko ci juróom-ñetti weer yi paase ngeen indi ñu lii ngeen ñu indil ci budget bi am na différence bu jéggi dayoo am na contradiction bu doy waar bu ci nekk ci situation bi sénégalais yi di dund jafe-jafe yu ñu nekkee ak réew mu rafet bu baax bu stable bu mel na mu war a mel bi nga xam ne moom la seen budget di refléter kon lecture bi ñu ci indi mooy du benn yoon boo xamee ne budget yi Sénégal bii méngoog nag bëgg-bëgg ak état réelu économie nationale ak situation yi nga xamé ni mom la nit ñi taxawé boo duggé ci biir tamit même frénésie ci ay investissement yo xamé ni ñakoy capté ay jaambur la ñuy bokul ci réew mi amna na benn boroom koo xamee ni industriel la nek ci kom kom gi wax na président de la république ni que ak ran ren jii rek gis nañu lu mat 3000 milliards yo xamé ni joxe ngeen ko ci ay ay investissement wala ay liggéey yu ngeen jox ay étranger te liggéey yooyu yooyu sénégalais yi entreprise sénégalaises yi mënoon nañ ko defar ci condition yi nga xamee ni day mat te day baax kon je pense que grosso modo et globalement euh, budget assemblée nationale bi wuutewul benn yoon ak yafi fi nekkoon amul benn yoon boo xamee ni taxaw na pour dab wala jege bëgg-bëgg sénégalais yi au contraire dafa nekk ci cosmétique boo xamee ni rek dama jàpp ni chaque année dañ koy indi di ko présenté assemblée nationale comme lettre à la poste ñoo ñooy tamit ci dynamique yu ñu nekk di ko voté comme nañ daaw di voté daaw bërki daaw mais en réalité euh, souci sénégalais yi bëgg-bëgg sénégalais yi ambition yi ñu war a am jëm ci emploi ak liggéey jëm ci xale yi jëm ci suñu éducation jëm ci wàllu mbay mi euh, benn yoon feeñul ci li nga xamee ne pas-pas yu xamee ne gouvernement bi daf ko waroon am. ay at ngi nii nga doon député ci assemblée nationale booy xool ni kër googi di doxee. ndax jàpp nga ne li nga xam ne moo di sa liggéey amuy liggéeyu député ndax yéen a ngi koy matal ni ngeen ko bëggee waaye tamit bu ñuy xool li nga xam ne sax mooy euh, tey pouvoir législatif ak solo si mu am ci démocratie àdduna bi bu ñu jëlee fii ci Sénégal ndax tey pouvoir législatif bi ni muy doxee bokk na ci li nga xamante ne bii dina jëmal kanam démocratie Sénégal. yaakaaruma benn yoon ni assemblée nationale bu Sénégal. taxaw na fa mu waroon taxaw am na suñu benn nattangoo ci classe politique bi ñu wax ko Moustapha Guirassy dafa wax loo xamee ni man dama cee d'accord ndax nee na tey jii bu ñu supprimer woon assemblée nationale du am lenn lu muy wàññi ci réew mi ndax diggante bi mu fi nekkee ba tey gisuñu benn impact boo xamee ni am na ko ki suñu wàllu démocratie am na ko ci wàllu cër ak taxawaay bi mu am ci surveiller alalu réew mi aussi taxaw ci interpeller gouvernement bi ci bépp anam ak bépp jëf bo xamee daf koy def pour le compte et le au nom des sénégalais kon lolé buñu ko naté dañuy xamné assemblée nationale amna un problème waxna len légui ni len premier jour lañu accepter accepté volontairement def sen bop arakiri manam jam sen bop xej ndax li nga xamé ni moy principe bi dimbali député bi pour mu libre par rapport au pouvoir yi bu mu mënti doon muy son immunité parlementaire ñom xottil nañ ko benn député pour des considérations politiciennes kon assemblée nationale ci li nga xamé mom le législateur bi di xalat daf ko teurel mom ak pouvoir exécutif ak pouvoir judiciaire pour que pouvoir bu nek di contrôler ba paré di apaiser wala di contenir benen pouvoir bi il faut que ñu am ay critères yo xam day tax bala nit ki di mëna doon dara foog mu am ay lo xam dañ ko koy wërale pour ay garantie yu ñu ci mëna nekk suñu bëggé assemblée nationale toll fa mu wara toll man de japp naa ni il faut que ñu def révolution wu commencer di exiger ci ñi nga xam ño fay dem benn ay niveau de formation wa ila ay équivalence manam sen jaar-jaar ak sen taxaway qui est ay pratique ak seen dund qui nous ñi nous réew mi nous lu wara tax buñ démé assemblée nationale dinañ nous un digne représentant du peuple sénégalais té yi assemblée nationale féodalisation bi mu am par rapport ak exécutif bi nga xamé ni lu nga xamé mom la exécutif bi wax bu bu bu yooyu dafay doon yi nga xamee ni moo indi désagrégat li nga xam ne moo yàq diggante sénégalais bi ak député bi ba tey jii benn sénégale wóolootul qualité wu travail bi nga xamee ni yaakaaroon nañ ko ci assemble te tey jii amatu ci beneen bi si tegu mooy dafa xaw a mel na ni suñu assemblée dafa xaw a archaïque ci ay démarches am ndax tey ji si tey waroon nañoo mën a utiliser wàllu numérique bi bu baax a baax. ba nga xamé ni lay loi de finance dañ koy jël rek email nga jot ko mu doon loo xamé ni vous ko mëna jot lay jël charger la ay junne du la amal presque benn njariñ la limite de lay encombrer plus qu'autre chose beneen bi aussi vous di n'importe quelle start-up sénégalais mën nañu am plateforme vous xamé ni day impliquer mu député sénégalais yi mën leen di suivre di xam seen temps de présence di xam ñaata question la poser au ci gouvernement bi di aussi une proposition de loi ils ont. indi la réalité suivre réalité wu fonctionnalité de assemblée nationale Donc normalement heure bi waroon naa fekk assemblée am chaîne de télévision ak de radio, pour xamee même commission yi travaux les cay def liggéey yañ cay def dafa à la disposition des citoyens kon qui est boo ko day wane ni tey jii assemblée nationale pilier bu am solo ci démocratie amatul njariñ ba mu waroon am njariñ ba loolu Moustapha Guirassy wax tey jii buñ ko jëloon supprimer ko tamit du am benn impact ci fonctionnalité wu réew mi ndax amul benn impact positif boo xamee ni cër ak taxawaayu député yi ci di topp réew mi di topp alal réew mi di topp ñiy jëfe wala ñiy sukkandikoo ci alal réew mi pour def politique ñu mën a exactement est-ce que ñoom ils sont dans les règles de l'art wala nekkuñu ci je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons un sérieux problème au niveau de l'Assemblée. bu ñuy dégg Cheikh Bamba Dièye ñu bari seen xel dafay dem ci bis ba nga xam ne euh, da nga taxawoon ci kanamu assemblée nationale takk sa bopp euh, mu doon acte boo xamante ni bii ñu bëri daf leen marqué. mun nañ ne loolu bokk na ci li gaawal 23 juin ak mbooloo mi ak li nga xamante ni bii euh, bis boobee euh, di 23 juin euh, Sénégal dundoon na ko mu doon loo xam ne kenn du ko fàtte tey bu ñuy xool boobaak léegi gisaatuñ act bu ñu toll ci yow ndax danga jàpp ne amatul ci ni réew mi di doxee lu jar nga posé beneen. acte wala nga def beneen geste boo xamante ne bi dina marqué esprit nit ñi waaye li koy sabab mooy am lu la metti ba nga jàpp ne nit ñi war nañoo fippu. waaw xam nga sëñ bi jëf joojee ñu jëfoon ci atum 2011 dafa amoon sabab sabab bi moo doon jamono yooyu démocratie sénégalaise xawoon na sonn lool ci pression boo xamee ni nguur gi fi nekkoon tegoon na ko amoon aussi déséquilibre bu jiggi dayo boo xamee ni amoon na.

ci réew mi ak koom réew je ni jamono yooyu loolu nekk na menace yu am solo yu taxaw ci dama seet rek ci li nga xamee ni sama borom dimbali na ma ci ma nan lay fexe pour interpeller ki nga ni moo interpeller muy sénégalais bi ndax mboolem problème yi ñuy même avec le régime de Macky Sall mi ngi am amplitude mi ngi parce que rek sénégalais yi yeewuñu jóguñu engagé wuñu suffisamment pour mën taxaw ndax ñom dong ñoo fi mën taxaw pour def face gouvernement bi ak ay dérivam kérok joju sama énergie ak sama xel yépp dama ko jël tek ci lan lay def lu wara tax sénégalais yi yeewu engagé wu ci li nga xamé ni bu soté mu doon musiba ci réew c'est pourquoi j'avais pensé que ni jëf jooju ma def muy takk sama bopp ci grille assemblée nationale yi dina interpeller conscience yi mais ba ma koy def aussi defuma ko woon pour benn jour benn instant benn problème dafa war a doon loo xamee ne ñi tax ma koy def ba keroog jooju ñu yeewu ànd ceeg man jàpp ci ba 23 juin taxaw jàpp ci ba changement ak alternative am ci alternance am ci réew mi ñooñu dafa war a doon loo xamee ni dañu war a jàpp jëf jooju takk ka pour tout le reste de l'évolution du Sénégal mu firi chaque fois que nous ñu une situation yu et pas seulement Cheikh Bamba les 16 millions de Sénégalais sont interpellés pour que nous fàttaliku jëf yu mel noonu yu war a tax bu jëree jóg ñu bañ xaar ci jëmmi Cheikh Bamba ou wala ñu bañ ko xaar ci jëmmi benn doomu Adama. mais ñu doon jëf de nous, ni ñun sénégalais ñun ñëpp à l'unisson comme ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk réew mi ñoo war a jógandoo def ko ci yàlla dimbali woon nañu keroog en deux 2011 2011 ba sénégalais yi tontu ci defe naa ni tey jii bu ñu jógoon di defaat jëf ju mel noonu du safe ndax def joojooy am na ba pare il reste que ni chaque acteur politique y compris man mi dañoo war a dellu ci suñu biir xel dellu ci suñuy biir yéene dellu ci li nga xamee ne mooy fondement wu suñuy combat

ñun sénégalais yi globalement tiré wuñu ko lan mo tax ba réew ma nga xamé ni nanguwul won lañ ko doon samp diko ko ko imposer en 2011 tey jii mu tëdd tàlleeku ñu dëgg ci kawam diko imposer lu yées fouf, li nga xamé ni mom lañ ko doon samp 2011 mo bañoon ko loolu dafa di question bo xamé ni man warna ci cee jéem wut tontu waye kuy sénégalais ku nek war nga ci jéem wut tontu mais solution bi bi ñëk moy tabax réew ak tabax démocratie du benn combat ci benn fan dafa di combat boo xamee ni chaque jour guddeeg bëccëg suba ngoon chaque jour da nga war def lu ko gën a suuxat chaque jour boo gisee ñu def lu koy yàq nga jóg xeex loolu ndax maam ab dafa wax ni boo bokkee nit benn mbir mu jóg di ko yàq fulla ga mu am di ko yàq amal fulla gu tol noonu pour xeex ak moom ba loolee bañ a yàqu ndax gaal gi suñu gaal la ñun ñëpp.

ak fu ñu mën a bokk ci société bi jóg nañu di xeexal Sénégal te seen démb ak seen barki démb ak seen tey jii méngoo ci engagement ak constance bi ñu am ci féete ci wàllu Sénégal ak intérêt Sénégalais yi Sénégalais yi en retour jóg ñoom tamit xam ni loo xamee ni benn nit a koy def bu si 16 millions jàppee day gën a yomb te jamono yooyu mooy gën ndax foofu rek la ñuy xaar Sénégalais yi en tout cas j'espère que acte boobu ma defoon en 2011 du naax saay il dafa war a doon lu sax ci sénégalais pas seulement que pour nous ki que Cheikh Bamba Dièye mais pour que nous donnions vecteur pour que nous donne propulseur pour que nous donne moyen ak euh, inspiration bu ne parle pas de moi encore moins des acteurs politiques seulement mais de tous les citoyens sénégalais Nous nga xamee ni développement ak comme koom bu ak respect équité intérêt sénégalais. Nous ñu àndandoo pour sampaat suñu démocratie parce que constat bi ñuy def tey jii mooy démocratie sénégalaise reculé na bu baax a baax et xëy na loolu mooy conséquence su dérive yi ñuy dund ak situation catastrophique bu économie nationale. bu ñu dellu si waatee ci 23 euh, juin boobee euh, la ko waraloon mooy lu état buggoon a jël ci dogal euh, te ñu jàpp ne que bu ñu ko seetaanee. démocratie Sénégal dina ndërmeelu moo taxoon ñu mel ni yow jógoon xeex ko ba état dellu ci ginnaaw ci dogal boobee waaye boobaak léegi mu amaat loo yoo xamante ne bii ci ay dogal yu état di jël mu mel ni nit ñi daal euh, gisatuñu lu jar ñuy génn tey booy def jàngat lan mooy li nga xamante ne bii jàpp nga ne moo tax euh, lay xewoon ci 23 juin euh, te boobaak léegi mu amaat yeneen mbir yu fi xew yu ni toll wala yu koy jege. ci wàllu ay conséquences yoo xamante ni mën na ko am te teewul nit ñi toog fi ñu toog lan mooy li nga xam ne moo tënk tey sénégalais yi. jërëjëf sëñ Lamine jàpp naa ne li tënk sénégalais yi mooy constaté bu ñu constaté ni seen kilifa yi wéruñu wóoruñu sérieux wuñu amuñu kàddu bu ñu bëggee dara mën nañ la wax lu neex a neex a neex waaye bis boo sàgganee ba jox leen pouvoir rek. ñu daal di soppeeku mel noo xamee ni doo mës a yaakaar ni nit dina sàggane noonu et puis dina sinigé noonu ci li nga xamee ni mooy ay responsabilité manque de confiance boobu discrédit boobu nga xamee ni dab na acteur politique yi ndax kat damay fàttali ni ci période 2011 boobu mode du sacrifice bu dul sacrifice yu jinne Sénégalais yi def nañ ko ndax sacrifice mënta rëy mbir am ñu kat ëllëgu Sénégal dafa nekk enjeu ñu dem a dem ba lu ëpp fukki nit ak ñaar wala ñett faatu ci ñàkk ci seen bakkan sama xel mi ngi dem ci Mamadou Diop ci ni nga auto police bi yéege ci kawam ba mais citoyen yi bu dee nañu ndax nañ leen muy ga ñu ci reddition des comptes yaakaar ga ñu amoon ci transparence yaakaar nga ñu amoon te Macky Sall doon ko wax suba ngoon si ni la patrie avant le parti est-ce que yooyu jëf nañ ko est-ce que am nañu traque des biens mal acquis est-ce que tey jii ñoom politique yi surtout le gouvernement du Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo wër Macky Sall est-ce que saxaluñu chaque fois ci bopp sénégalais yi ni que ni tey jii lu la neex defal lu la neex waxal ñu la neex melal lu la neex jëlal su fekkente ni yaa ngi ànd ak moom Macky Sall sénégalais yi bu ñu demee ba gëm ni. nit ñi liggéeyalatuñu Sénégal waaye dañuy politique ndax boo ko seetloo di ko déglu lu bare bare na ay acteurs yu politique yoo xam ne boo leen laajee daan la ay eh, ñun dañuy politique ah ñun dañuy politique ah mais Sénégalais yu dofuñu xam na ni boo nee leen da ngay politique ça veut dire que ni yow jox nga sa bopp le droit de mentir maanaam jox nga sa bopp sañ-sañu fenn Sénégalais yi jox nga sa bopp sañ-sañu jël alalu Sénégalais yi lekk ko wala dugal ko foo xamee ne amul benn njëriñ jox nga sa bop sañ-sañu fowé loi yi jox nga sa bop sañ-sañu ko mën daan ko duma ko ko niko rap ci biir kaso bi héritage 2011 bu fekkente ni résultat bi moy jëf yu mel je crois que c'est tout à fait compréhensible que nit bu fi yëkkati ko di wax naan kay leen ñu liggéey kay leen ñu xeex kaay leen ñu xeex nit ñëpp bank seen loxo tok mais quand on analyse plus profondément liñu dab deug deug deug maanaam daanu la bu ñu daanu ñun société sénégalaise ci bàyyi bu ñu bàyyi suñuy valeur bàyyi suñuy bàyyi suñuy gëm-gëm te suñuy njiit yi poussé ñu ci ba tey jii kenn xameetul kan mooy kan ndax kat daan naa ko wax démb te dinaa ko rappelé waat tey jii réewum Sénégal dañuy wax naan jëf jël ñaq tedd sa jamonoy maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ku kër góor dugg ndey yi ak baay yi bu ñuy yar seen doom ci njub ci maandute ci liggéey ak gore lañ leen di yar waaye bis bu nit ki génnee ci kër gi di dugg ci langue politique jikko yooyu daf koy bàyyi ca biir kër ga nee naay day politique ñun nag ñoo war a àndandoo ñun sénégalais yi xam ni le projet national bi ñu am ce n'est pas un projet pour des étrangers c'est un projet pour des sénégalais et on n'a pas besoin d'un Sénégalais hybride d'un Sénégalais boo xamee ni day dissocier wu entre ses valeurs traditionnelles ses valeurs familiales ak une fausse idée de la politique boo xamee ni héritage colonisation bi ndax tubaab bi moo baaxoon di sàcc alalu réew mi di foowe nit ñi di dooree ko daane pour mën a jël lu ñu moom yépp yóbbu ko te ñi mu fi bàyyi ñuy ay ñoñam noonee la ñuy par rapport ak askan wi par rapport ak réew la véritable révolution bi ñuy soxla tey jii moy que ni kuy génn sa kër ni da ngay jëf ci askan wi jukko yan la yara ci biir kër ga ñun ñëpp ño wara andando àndandoo veiller ci pour que jukko yooyu topp la toute la stratégie li ñu manqué ba tax tey jii boo yëkkatee nit ñi duñ ci top nekkul fenn fu rek ci discrédit ak manque de confiance bo xamé ni sénégalais bi am ko ci acteur politique bi sénégalais bi am ko ci ñi nga xamé ni ñoo jitu ndax élite yi bu ñu défaillant du ñu matal dara ndax Sëriñ Tuubaa dafay wax ni wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksifin fasal nee na ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des réew yëpp ñu ngi am maanaa par rapport ak qualité njiit yee su fa nekk bu sa njiit manqué bu sa njiit doyedee bu sa njiit dee sàcc bu sa njiit amulee kàddu bu sa njiit dee wor gëwuma ni alal jang koy dénk gëwuma ni sécurité ba nga koy jox gëwuma ni doole ga nga koy jox dina doon doole goo xamee ni wala alal joo xamee ni wala kattan woo xamee ni dina jariñ réew moom au contraire day doon luy déstructurer le socle des valeurs di descendre sénégalais yi di créer confusion boo xamee ni chaque jour conséquence ba mooy pauvreté bu gën a yaatu corruption bu gën a yaatu jaay doole bu gën a yaatu et réew moo xamee ni day gën a dellu gannaaw dafa mel ni tamit euh, tekkaaral googu euh, yow daf la dal ndax bu ñuy xool ginnaaw bi nga ñàkkee mairie wu Saint-Louis génn ci gouvernement bi booba ak léegi ni ñu daan déggee daan ko gisee Cheikh Bamba Dièye ni mu daan feeñee euh, bokk ci acteur politique yi nga xamante ne bi doo tudd ñaar ba ñett te boolewuloo ko ci waaye loolu mu mel ni lu wàññeeku lool même parti bi nga xamante ne bii moo di FSD/BJ déggatuñ ko euh, lu bari ci ay activités politiques lan mooy li waral euh, li nga xam ne mooy tekkaaral googu ak euh, ni nga xam ne noonu lañ la daan gisee giseetuñ la ko déggeetuñ la ko tamit jàpp naa ni nan ma daan di gisee giseetuñ ma ko mais tekkaaral gi moom amul benn yoon ndax li ko waral mooy lu ñu war a def rek ba jàpp ni lii lu jaadu la méngoo naag suñuy responsabilité ñu ngi koy def. waaye nag wolof dafa naan boo demee ba si yàgg saar au cours de ta vie dina baax nga taxaw def introspection xool yow ci sa jëmmi bopp yaay kan li ngay nekk mooy lan xool réew mi nga bokk di fa évolue aussi fu mu toll nga delluwaat njàngaat ko jàngaat réew moomu moo lay permettre nga mën a am gis-gis boo xamee ni dina gën a méngoog fi nga war a taxawee li nga war a def ak yoon ya nga war a jaar mais loolu aussi dafa amaat beneen jàngat bu muy indi moo di Sénégal gi dafa di réew mu doy waar booy wax di dénoncer parce que da nga jàpp ni da nga cee bokk dangay ngay dénoncer parce que da nga bëgg mu gën a baax sàggan nañu réew mi sàggane nit ñi ba dañuy wëlbati ni yow danga añaan danga soxor wala dafa am loo xamee da nga ko doon yóotu jotuloo ko boo nee tekk tamit ñu ne waaw lu tax nga noppi à la confusion la doon wax léegi ci wàllu valeur yi Lamine moo dab ba ni nga xamee noonu la ñu identifier ak noonu la ñu acteur politique bi man diggante bi amul benn yoon boo ni tekkaaral naa fi ndax bind fi téere def fi ay contribution yu bare bare ni su ma sama somme politique au Sénégal de 1960 à maintenant def une analyse profonde li nga xamee ni génné ay piste yu leer ci bépp domaine boo xamee ni amal na solo te loolu bu ma niwul woon tekk ay jamono surtout ci li nga ne manifestation ci médias yi du ma permettre ma liggéey profondeur boobu nga ni dina ak gis-gis et aussi ci li ñu activité suñu mosuñoo dañ di yëngatu mosuñoo dañ di taxaw di taxaw di am solo di taxawaay boo xamee ni dafay méngoog objectif yi ak yéene yi nga xamee ni assigné nañ ko évidemment Sénégal am na noo xamee ni noonu la jàngee politique am na noo xamee ni noonu la ñuy dundee politique man nag dama bokk ci sénégalais yi nga xamee ni dañuy bañ di def folklore ak situation yo xamé ni moy woné sa bop ci mbir yo xamé ni à la limite c'est une genre politique spectacle la ni finalité ba amul ben ci li nga xamé ni moy priorité yu ñu am moy réew mu deuguer nit ñu doom yo xamé ne ñu ngi leen di topato di leen aar di dimbali ci éducation jappalé leen ba paré samp ay règles de fonctionnement yo xamé ni ñun ñëpp dinañ ci pour que Sénégal jëm kanam yooyu suñu pas-pas dama un acteur politique dafa war a nekk nit ku jub dafa war a nekk nit ku maandu dafa war a nekk nit koo xamee ni bu nit ñi ñëwee ànd ak moom ak nit ñi bañ a ànd ak moom du ko tere benn yoon la mu jàppoon démb muy ligne ba nga xamee ni fa la si teg tànkam daf ci war a mooy abadan daf ci war a mooy tout le temps pour que mu mën a doon un point d'ancrage boo xamee ni dina woo Sénégalais yi ci yoon bi nga xamee ni fa la ñu war a nekk. depuis ba ma nekkee ci politique ak léegi et ça je prends en témoin tous les sénégalais la ma doon bama ba ma lay bagn ba fi tay. la ma bëgg bama tambalé, mom lay bëgg ba fi tay. wàññiwu ci millimètre dérogé ci un centimètre ci li nga xamé né mo war doon sama posture ak sama taxaway ci biir réew mi Sénégal yi nak ñom mom seen cëgal guy ño am pour ragné nit ñi ak nit ki pour mëna xamé fan la sen intérêt nek réellement parce que japp na ni bis bu Sénégal yi ba mën nat nit ñi nga xamé ni sur plusieurs années sur plusieurs dizaines d'années lañ doon dundé mom lañuy dundé ba tay engagement yañu amone mom moom am ba tay je pense que ni ñooñu ñoo jar jappalé ci réew mi ñu nek ñooñu ñoo jar a jox baat ci réew mi ñu nek ñooñu ñoo jar xol parce que quoi qu'on puisse dire dinañu raté suñu lépp su fekkente ni jëfewuñu politique ni ko Cheikh Ablaye djey bëggee woon Cheikh Ablaye daan wax ni politique mooy yu dagan ngir jariñ askan amul fen amul folklore amul jimaamu amul nit ñi am sérieux rigueur fayda refus de la concussion de la corruption du népotisme et de tout ce qui peut demain être des éléments de déstabilisation wala suñu réew boobee ba sama mon souci see changé millimètre et il reste simplement aux Sénégalais de se poser les bonnes questions est-ce que politicien spectacle politicien bo xamee amul ben scrupule si jël al réew diko sédélé nuko nexé li ci ëpp mu def ko ci bopam ak mbokam mo leen intéressé wala bok citoyen modèle citoyen sérieux yu rigoureux yi nga xamné ne ni seen pas-pas lu ci Sénégal ba Sénégal donne la première puissance économique de l'UEMOA donc nek une force motrice dans la CEDEAO man japp na ni yooyu mo wara donne suñu priorité yooyu mo wara donne élément d'identifiant yi ñu xolé ndax un acteur politique est viable est-ce qu'un acteur politique est crédible wolis auto yi pimpon bi t-shirt yi caaxaan gi fogg ak tey ñu yëkkatiwaat euh, coowal troisième mandat moo xam ñi nekk ci nguur gi wala ñi nekk ci kujje gi du ñu ne guléet ndax ba ñuy dem élection 2012 président ba fi ne woon muy euh, Abdoulaye Wade ne woon da ci bokk te ñi nekkoon ci langu politique bi ci kujje gi ak société civile bi taxawoon ne du fi amee ay manifestation sax jotoon fi am ba am ñu ci ñàkkoon seen bakkan tey lii nga xamante ni bii ñu ngi koy waxaat euh, ci troisième mandat ba jànkat nga ci am waaye tamit euh, lan mooy li nga xamante ni bii war nañ ko ci def ba la mu juróon ca jamono yooyu mu bañ a amaat. jërëjëf sëñ lamin mais li ci gën a doy waar mooy lu tax chaque fois que bu ñu jëlee suñu kàttan ak suñu yaakaar dénk nga kenn ci acteur politique yi bu demee ba yegg ci pouvoir bi rek day daal di soppeeku. nekk beneen nit parce que man jàpp naa ni problème bi gën na xóot nit ñi ci bëgg a gisee ndax tey jii coowal troisième mandat du coowal senegal rek boo seetee ci zone UEMOA bi yépp foo dem de côte du de la d'Ivoire jaar Guinée ak feneen fu nekk dangay gis ni même réflexe yi lañu am ay nit ñoo xamee ni bu ñu épuiser seen mandat. moddu caay-caay bu nekk dinañ ko indi moddu roublardise bu nekk dinañ ko dugal pour continuer sax daa iman ci bopp nguur yi man dama jàpp ni li ko waral mooy zone bii di mois seen lien yi ñu am ak France mooy zone bi gën a doy waar gën a archaïque ci modèle de coopération yi am ci àddina yépp ndax ñi fi nekk amaana boo ko seetee ba si bi da nga naan ñoom France la ñu gën a wóolu France la ñu gën a àndal wóolis réew yi nga xamee ni am nañu confiance ñoom ba dénk leen seen pouvoir ndax foo ci dem même mécanisme yi même moyen pour yàq seen processus électoral parrainage la carte électeur yu bees téye carte doomu jaamur yi wëlbatiku ci opposition bi diggante kaso ak prison jappal dindil gennel rewmi etc. etc fo ci dem ils ont tous les mêmes mécanismes même ci seeni ay perspective de développement yi nga xamé ni pour man du dara ñom ñep ñoko bok fo ci dem même vocabulaire utilisé utiliser Sénégal émergent etc., etc. même acte trois au Sénégal sax ci décentralisation boo c'était François Hollande ci jamono 2011 2012 moo a lancé en France ni des acte 3 ñun Sénégal dans une dans une forme de mimétisme bo xamee ne xamoo indi ñu yox nan acte 3 acte en réalité il faut que cordon yi nga ni ba sous le joug d'une indépendance par procuration ñu ci réew mi ndax ils sont plus redevables à la France qu'aux citoyens yi nga ni fal démocratiquement et les mêmes conséquences vont entraîner des méfaits yo xamee ni mooy gën a graaw mooy gën a bon ku ko weddi rek xolal évolution processus démocratique bi depuis 2000 xex yañ ca xeexoon biñu ñu 2011 japp 2012 xex bo xamé dañ ko multiplier par 10 pratiquement mom lañ ci def pour mëna am alternance té kat lañu jappone ni jeexna bañu ba légui gassé Sénégal légui macha allah transition yi dina jaar yoon démocratie bi dina taxaw ndax ñun ñëpp ñoo àndandoo xeex ba lii ñu bëgg ñu am ko tey jii pratiquement dafa mel na ñu delloo nañu fu gën a yées sax sa jamono Senghor ba mu fi nekkee ci régime parti unique conséquences yi mooy pour que ñu mën a libéré wu ci situation yi ñuy dund pour que ñu mën a libéré wu ci entrave yi ñu ñu teg suñu yàlla dimbaliwulee dinañu paye prix boo xam ne mooy gën a cher fouf prix bi ñu fayoon ca 2011 te dëgg-dëgg njëkk la ñu fayoon ca 2011 dafa doy sëkk pour que Sénégal sax daa iman doon une démocratie et sëñ Lamine ci moom doon l'occasion euh, baal ma ci tutoiement bi yaa ngi may may occasion pour ma mën a wax ak sénégalais yi pour wax leen ni leen lii raam si ñat bi la jëm ki nga xamee ne pour que mu am 58 pour cent ci suffrage sénégalais yi dafa jël juróom-ñaari at yoo xamee ni wedd na ci kàddoom indi ci référendum boo xamee ni tegu ko fenn wëlbati dugal leen carte électeur yoo xamee ne plus de cinquante milliards sénégalais yi jaar nañ ci jël parrainage teg indi caution teg wëlbatiku li ëpp ci acteur politique yi nekk ci fitna goo xamee ne xamuloo nu mu toll ñenn ñi dem nañu kaso ñenn ñi wëlbatiku exilé nañ leen ci ci yeneen i réew je pense que ni kookee bu doxee liggéey loolee lépp te résultat am weesuwul que ni ñaari sénégalais yo jël kenn ki d'accordul ak mom ngeen xamné koku kooku bu continuer indi lendem lendem ci walu élection locale yi indi lendem lendem ci walu kañ lañu wara def législative yi ku joggé ci biir ñoñam waxé walu 3 troisième mandat mu dàq wala mu def ci yow lo xamee ni doy kon ngeen xamee ni il y a quelque chose qui se prépare amna na lu ñuy tramé té li ñuy tramé bu fekkonte ni rek comme na mu ko waxee woon sa constitution ni mandat yi mënut a doon ñaari mandat yu toftale fas yéene woon na ko jëf kon tey jii du ñu nekk ci imbroglio boobu duñu nekk ci incertitude boobu et je pense que ni ya ay moroomam def ci yeneen i réew ba jàll moom mii bu ngeen ko mayee lu tal na por tarfatal ay ni ci porox ndollu dina fa jaar imposer sénégal yi troisième mandat. ñu gis président Macky Sall di gën a yaatal ñi nga xamante ni bii ñooy ànd ak moom. am ay leader politique yoo xamante ne tey fekk ji nañ ko mu mel ni bi mu am ci ne day gën a néewal opposition ci euh, tànk yooyu la nekk bi nga xamante ni Thierno Alassane Sall mi ngi def cérémonie de dédicace su téere bi mu bind nga demoon ca jëloon fa kàddu doon wax ne ku jegi tey euh, li leen war mooy ñu ànd euh, lan mooy li mën a tax ànd bañ am waaye tamit lan mooy li nga xamante ne tey kujje gi muy opposition bi mën na leen ci fekk bu ñu àndulee. jërëjëf sëriñ Lamine ci laaj boobu li ma jàpp ni moo nar a gàllankoor ànd boobu mooy acteur politique yi nekk ci opposition bi di wax loo xam ni gëmuñu ko wala ñuy taxaw fañ taxawoon démb ak bërki démb waaye bu fekkente ni am nañu yéene te yéene gi sell na ci liggéeyal Sénégal. bu fekkente ni pare nañu pour construire une véritable démocratie une nation unie réew mu taxaw boo xamee ni doomu aadama yi dinañu góorgóorlu suba ngoon pour mu jëm sa kanam su fekkente ni loolu moo nekk ci seen yéene je pense que ni du ñu am benn problème pour mën a gisee du ñu am benn problème pour mën a juboo du ñu am benn problème pour mën a au sens de l'intérêt du Sénégal jàpp aussi li nga xamee ne Macky Sall def na jëm ci opposition bi am njàngat la wara indi ci biir opposition bi avantage bu am solo la ndax kat bu tibbee ñi mu tibbu yobbu deful daral rek lu du leeral cër yi ak taxaway yi ci biir opposition bi ndax ña nekkon ci lu dans un clair obscur ña nga xamé sen taxaway taxawaay wérul woon yépp dinañu wël dox dem fekk Macky Sall mu wóor ni ko kon ñi dess ci opposition bi seen position lu ñu gëm la seen taxawaay lu wér la te dafa war a doon leneen loo xam aussi source de motivation la ndax lay consolider dooley opposition nekkul ci li Macky Sall di fa tibb di yóbbu ca këram la koy wàññi aussi nekkul ci li ci Macky Sall di tibb di ko yóbbu ca biir parteem ndax lay dundal opposition tigi tigi mooy jëf ju ñaaw jëf ju bon raté de développement yi nga xamé ni nguur gi dina ko am ak injustice yi muy samp ci réew mi té ma dalal xélu nit ñi ni opposition mom ak bop xalé lu góor ñooyam saa yo woté ba dafa ne karaw jeex na rek karaw yu bees yu gëna a dëgër yu gëna am mana yu gëna a rigoureux ñooy dellu si waat et pour cela je pense que c'est de notre mission à nous tous que ñu dox dajé ku nekk su ñun bàyyi te nit ñi nangu dogalu yalla sénégalais yi ñom mom seen réew ñoo am pour tànn ci biir acteur politique yi ñun ñëpp bu ñu defulee ku nekk di nga war a yëg sa bopp fan la sénégalais yi toll ci acteur politique yi nekk ci biir opposition bi bu ñu demee bay ànd ñu ànd te nangu critères yi yàlla def ak nit ñi ànd ci dox ko dox bu sell en tout patriotisme ñu àndandoo liggéey suñu réew mu jëm sa kanam parce que kat danger bi mi ngi nekk ci ni tey jii Macky Sall nanguwul benn yoon organiser élection locale nanguwul ben yon organisé ay législatif te suñ ko bàyyee fii 2024 du organisé ben élection la ko waral moy day daw syndrome 2009 muy réalité wu ni bu accepter élection locale am ak ni opposition yu mel ak ni résultat au présidentiel yi génne ak ni nga xamé non le résultat au législatif yi teudé xawna wirni la bok wér bu wér li bare bare bare ci collectivité territoriale yi dinañu joggé ci ay loxom dem ci loxo opposition bi bu sampee législative tamit bu opposition bi muusee te dox dajé wér na ni lu takku ci ay député dinañu joggé ci loxom dem ci opposition bi té yooyu yépp bu ko bolé day don ay indice ay signes yu leer ni mom ak la budde 2024 waxuma alternance de waaye buñ ko gor gorlo alternative bu wër bu wor buy jariñ sénégalais yi mën na sé judd buñu amé opportunité yoy nak ñun ñoo wara am sagesse bi am désintéressement bi am rigueur bi mu wara pour ñu and dox sans esprit hégémoniste sans boulimie ñu àndandoo liggéey loo nous ni dina tabaxal Sénégal jàmm mais malheureusement wolof dafay faral di wax ni bu for yombee sëgg jafe et j'en appelle vraiment à l'esprit patriotique à la lucidité des uns et des autres pour que nous dormions directement vers l'essentiel éviter les détails éviter les querelles de clocher te àndandoo su fekkente ni rek li ñuy woote suñu la pour l'intérêt supérieur du Sénégal la démocratie et le développement bi nga ni depuis 1960 sénégalais yi ngeen koy xaar ñu leen koy dig te gisuñu ko fenn. Tay bu euh, Cheikh Bamba Dièye nit ñi seen xel ci limuy dem bu ñuy seede dañu naan nit la ku dëggu nit la ku am pass pass nit la ko xamante bi ko am fit lay tamit. Euh, teewul bu ñu nee dañuy dem élection mu mel ni li ëpp ci sénégalais yi ñi ñuy jàppale mooy ñi nga xam ne euh, dañu mel ni dañ leen di nax walla euh, ñoom du ñu faj seen ajo waaye teewul ñu continuer di leen jàppale tey lan mooy li nga xamante ne bi mën nañ ci taxaw def ci jàngat pour comprendre lan mooy sénégalais yi choix yi ñuy def ci bu élection jotee ci nit yi nga xam ne ay nit la yoo xam ne ñoom ci seen bopp mën nañ seede ne ay nit yu dëggu lañ ay nit yu baax lañ waaye ñu mën leen fi bàyyi di jàppale ñeneen. jërëjëf sëñ Lamine loolu li ko waral yëpp mooy rate yi nga xamee ni politique am na ko ak politique de développement yi am nañ ko suñu réew depuis ba ñu moomee suñu bopp en 1960 ndax citoyenneté kenn du ko judduwaale dañ koy tabax ci yow l'État a failli gannaaw bi ñu moomee suñu bopp ñu waroon toog pour xam ban projet national la ñu am. ban citoyen lañu bëgg défar l'olé dañ ko fa bayyi continuer le legs colonial continuer le régime de prédation bi nga xamé ni tubab bi mom la nekk woon ci suñu alalu réew ci suñu kom kom réew ak équilibre yi nga xamé ni am nañ ko suñu bop kon dama japp ni bu fekkenté ni de régime à régime régime bu ñew day consolider la pauvreté day consolider la dépendance des citoyens day consolider ñak xam ak ñàkk a go xamé ni ñak tabax nañ ko ci nit ñi bu ul bu yagge touti ñom li ñu dañuy politique day daldi yaatu yaatu yaatu ba imprégner conscience sénégalais yi ba mëna doon sax lo xam ni identifiant bi sénégalais yi di xolé acteur politique boko bolé ñak ñàkk geeg ndóol gu tar gi nek ci biir réew mi day mel nak la nga xamé ni sëñ Moussa Ka daf ko doon wax ni ñak baaxul ci waju baax nee na ñàkk baaxul ci waju baax day tas xolam di jeex Cheikh Abdoulaye Dieye dan wax naan kuy bëgg a lab ku la tàllal jaasi nga japp ci la pauvreté le manque d'information le manque d'éveil et de conscientisation moy adversaire nit ñu mel na ñun ñi ba nit ñi tay ji bu politique jotee caaxaan fo ak tappale lañ ko gën a assimiler amatuñu perception wu bi nga xamee ne moom la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni xubbul watan min al imaan Cheikh Abdoulaye indi ko ci wolof ni bëgg sa dëkk ci gëm yàlla la bokk wala bokk politique mooy sàkk pexe yu dagan ngir jëriñ sa askan noblesse bi nga xamee moom la activité politique war a am sénégalais yi fàtte nañ ko retenir rek luddul rek leçon yu bon yi nga xamé ni kat yi ak ñi nga xamé ni jouissance pouvoir mo leen intéressé samp nañ ko comme lecture comme grille bi nga xamé mo apprécier l'action politique et c'est pourquoi man ma d'accord lolu avec le doyen Mamadou Ndoy bi wax ni il faut que ñu changer fondamentalement la culture politique au Sénégal et les pratiques politiques li ngay wax naan ñu mel man dañuy daan ñoo xamee ne dañ leen di ostraciser mu mel na ni boo nee dëgg lay wax boo nee rigueur lay dund boo nee du ma sàcc alalu réew mi boo nee man damay tabaxal loo xamee ni rigueur la ak lu am solo la nit ñi dañuy détourné ci yow mais nag loolu mooy suñu sensu combat loolu dañ ko war a assumer su fekkente ni du ma am carte parce que Sénégalais yi dañoo jàpp ne je suis rigoureux wala bok lenn ci sénégalais yi dañoo bëgg gën dañ leen bëgg a gëmloo ni ku rigoureux doo tekki ku jub doo tekki ku bëgg Sénégal te mu sincère yow doo tekki je l'assume parce que il n'est pas question pour moi de changer un millimètre ci sama comportement parce que man lañ ma yare sama biir kër ni ma dund doomu aadama noonu la war a mel fu ma tukki fu nekk loolu laay yóbbaale bu ma duggee ci politique moom lay dund bu ma génnee ci politique moom laay génne ndax la béy doon dunde ba sax sikkim bu goree war naa mën a continuer loolu ba faatu et en réalité gars yi naxee mbaay la dañoo bëgg gëm loolu sénégalais yi ni foofu la yoon wa te du foofu ndax li ëpp ci sénégalais yi il croit fondamentalement yaakaar nañu ni ni sénégalais dafa war a nekk nit ku jub leader dafa war a nekk nit ku jub un acteur politique dafa war a nekk un exemple nit koo xamee ni dañ koy roy nit koo xamee ni

sauvé ngeen Sénégal ñàkk koo def nag moo leen di dugal ci situation wu politiciens yi naan dañuy politique jox seen bopp droit sàkki seen alal jox seen bopp droit di leen fen jox seen bopp droit di leen dóor ak di leen daan jox seen bopp droit lu baax lu ngeen am ñu tënk ko ba mu taxaw jibbal ko ay jaamur yéen ngeen des ak loxo neen lu waay ñàkk gis-gis ñàkk gis-gis war nga xam ni yoon woowu amul mucc yoon woowu moo ñu samp ci sous développement de 1960 à maintenant yeneen réew yi dem ca kanam yépp dañoo gedd yoon woowu jël yoonu dëgg jël yoonu sérieux ak rectitude def ko muy système bi ñuy natte politique. politiques yi man day je resterai fidèle tant que je vivrai di ci góorgóorlu ñaan yàlla mu dimbali ma si jàppale ma si man ak fsd ak képp koo xamee ne acteur politique nga boo xamee ne ànd nañoo ak yow ñu ngi am yéene yi fas yéene dund loolu quel que soit par ailleurs appréciation bi ko sénégalais yi di def ndax jàpp nañ ni yoon woowu mooy dem kër te bu ñu dof tamit ndax ay jullit lañu bu ñu rëccee nit ñi tamit du ñu rëcc yàlla te ku fi dee ku nekk boo wéetee ci sama mel di nga xamee ni jëfoon lu baax bàyyi fa alalu jaamur yi maandu moo gën fuuf damay dóor moo gën fuuf damay politique boo xamee ni ça te donne le droit di def lu bon lu nekk te li nga koy def ci sa kaw ndoddu askan rek nga koy def et je pense que ni c'est cette mutation dans la culture et la pratique politique qu'il faut enclencher Il faut mu am ay nit yu assumer seen devoir il faut que acteurs politiques yi ñeme ko pour que sénégalais yi fekk si leen il faut que tamit sénégalais yi am fullay képp koo xamee ne tappalekat nga wala caaxaankat nga wala yàqkat nga buñ la ba identifier àddina du yàgg mukk ba ngeen war a te jël seen kàddu wala seen baat di leen ko dénk parce que dénk sa bopp koo xamee ni wóorul dénk sa bopp koo xamee ne day jël dénk sa bopp koo xamee ne boppam rek ak tax jóg dénk sa bopp koo xamee ni amul kàddu bu ëllëgee loo ci góobee war ko gar te boo nekkee ci ak développement ba tax ji say doom gedd réew mi ni dañuy dem ci gaal yi donte dee daf leen ciy c'est une conséquence immédiate pour wane il faut que ñu rectifier choix il faut que nous adapter suñuy choix ak suñuy bëgg-bëgg suñu bëggee développement il nous faudra choisir des hommes de développement

waaye tamit euh, économie àdduna bi euh, taxaw euh, réew yu bari ay problème nar leen ci fekk ci weer yi ak at yi di ñëw Afrique nekkoon ci coono nekkoon ci guddi gu bët setagul lii ñëwaat fekkaat ñu fii lan mooy tey li nga xam ne ay priorité la yoo xam ne ñi jiite war nañ ci taxaw ba coono yi nit ñiy dund mu wàññeeku bu mënta dakk li nga sëñ Lamine wolof dafa naan gumba war na tam tam li <clears throat> nga sëñ Lamine wolof dafay wax wax ju am solo nee na gumba war na tab war na tal leneen lu dul tebiteen bu jamono naqaree sa priorité dafa war a dem ci ni nga am une économie bu wér bu wóor bu set bu sell nga bàyyi yàq bàyyi folklore def des économies d'échelle am rigueur ci li nga xamé ni moy xaalis bi ñuy dépenser ludul dul dépense prioritaire waratuñu ko engagé ci réew mi lu dul loo xamee ni consolider suñu résilience par rapport à aléa yi nga xamé ni dina ci par rapport à tolof Covid 19 bi nga dal nañu par rapport ak instabilité système économique bi nga xamé ni nek ci adina mais dañuy même question pour que ñu am rigueur de gestion Une am transparence bi mu am choix efficient yi nga xamé ni war nañ de développement il faut que la question de l'homme et de la gouvernance publique donnent lo xamee lu wér la donne lo xamee lu muccil ayib la donne lo lu sûr la mais bu fekkente ni ay nit yuy bare tapalé lañu bu fekkente ni nit ñoo xamee ni seen nguur jaral na leen ñu sacrifier la presque totalité des citoyens de leur pays ñoo ñuy diriger à la kulli xaal dañuy wax rek dañuy jéem rek waaye duñu dem fenn donc il faut que sénégalais yi xam ne li ñu bëgg ci seen réew li tax ñu wóolu Sidi Hadj Malick wóolu Cheikh Ahmadou Bamba wóolu seeni ay njaboot c'est dañoo am yëg-yëg ni ñoo de la ñu doon wax moom la doon dund seen njàngale méngoo ak seen kàddu te kenn gisul si ñoom benn yoon boo xamee ni ay velléité wu jël alalu réew mi pour di ko approprier wala di ko caaxaane dañoo am suñu réew mu am ay valeur valeur yooyu nag moom la ñu war a wu parce que ay nit yu jub ay nit yu maandu ñoo mën a sàmm ci situation de crise am réew ba mu jàll ko dans les meilleures conditions sàggane nañu Sénégal sàggane nañu doomu Sénégal ba tey jii ñeenti mbir yi moo ñu gàllankoor li ëpp si duñu du nangu mukk jël seen responsabilité li ëpp si dañoo bëgg lu yomb lool ba pare nag. Sénégal li fi sax tay ji moy fan sàcc ak faral tooñkat ab société mënta nek ci bëgg lu yomb daw res fan sàcc faral tooñkat ba pare bëgg construire le développement yéen doomu Sénégal yi yéen mom moom seen réew te ku nek ci yéen way jur la ku nek ci yéen bu yagge touti dina doon way jur te ku nek boo yar sa dom ci ay valeur nga kay yar nañu am fulla ak fayda ba valeur ak ngeum ngeum yi ñu am te moy yuy qualifier motax ñuy fonk nit nañ ko imposer à la classe politique imposer que à la société publique pour que nit ñi xam Sénégal gawoon demb ak barki demb dafa wara a jeex takk suñu bëggé traverser crise yi nga xamee à dimension internationale la ndax kat deuxième vague virus bi amuñu kattan amuñu moyen amuñu jumtukaay yuñ ci défé face lenn rek mo ñu ci mëna dimbali ñu moytu di jël alal réew mi en période de crise nga am ay tappalekat yoo xam ne dañ ci profito pour enrichir aussi di yéeg ci ndoddu nit ñi di yéeg ci coono nit ñi ak difficulté yi sénégalais yi di traverser ci jamono yi pour construire des richesses yo xam ni teguwul fenn deug deug am nañu ay défi pendant des années yoré nañu sénégalais depuis 1960 xale bu fi judd 60 tu 60 ans, tu as troisième âge. Pendant 60 ans, des générations de Sénégalais nous espéraient Rio Moudjak. Nous espéraient Rio transparent. Nous espérons Rio Mou développé, Rio Mou prospère. Zéro, c'est zéro. Nous en 1960, nous avons faire un débat ña ñu départandoo won ci 1960 dem nañu seen yoon bu nous tay ji bay ñuy réenté ak ndóol ak ñak ak sous-développement ak précarité ak une vulnérabilité extrême par rapport aux aléas internes comme aux aléas externes kon nak ku nekk ci ñun def introspection wam ñu xam ni valeur du Sénégal mi ngi dépendre ci valeur ak engagement wu citoyen au Sénégal quest kenn du jóge ca bitim réew bàyyi sa réew ñëw duñu liggéeyal suñu

jiital FSD/BJ bi nga xam ne tey mu ngi ci say loxo mu doonoon koo xam ne bu ñuy fàttaliku dafa am ay valeurs yoo xam ne da ko doon jiital doon ko défendre ci wàllu politique tey euh, ngay wéyal loolu euh, ci wàllu engagement politique lan mooy valeurs yi nga xamante ne bii bàyyil na la ko te foo mënti nekk ci ni ngay doxalee ci biir langue politique bi mu lay topp saasu ne jërëjëf sëñ Lamine man dama am maître ci politique dama am sëriñ ci wàllu diine ak ci wàllu politique sama sëriñ boobu di Cheikh Abdoulaye Dieye moom moo ma définir lan mooy politique moo ma wax lan la ñu war a xaar ci acteur politique te loolu moo wax daf ma doy sëkk walis la tubaab ba di jàngale walis ba la jaambur ba di jàngale ndax ci loolu ci leen ma yar te wax naa leen que léegi la bay doon dunde ba sax sikkim boo goree war naa mën a continuer ak loolu ba faatu bi si njëkk mooy que ni bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk ñaareel ba mooy politique moo di sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan Cheikh Abdoulaye daf na daan wax ni jëlee ko ci Serigne Touba nee na boo bëggee jiite say nawle da ngay def loo am nga bokk ak ñoom te lu ñu am nga bàyyi ak ñoom danga war a nekk nit koo xamee ne du ñu ragal sa loxo du ragal sa làmmiñ yooyu laa ni mooy li nga xamee ni mooy charpenter suma action politique te damay dund pour que chaque jour sama défi moo di rek góorgóorlu ba bu ngoon jotee ma jëf loo xamee ni méngoo naa taxawaay ak njàngale ak tëralin ak fi nga xamee ne fa la ma Cheikh lay Dièye teg noonee mu ma définir politique noonee mu waxee lan moo war doon leader ak acteur politique fa mu tàmbalee fa laa tàmbalee fa mu yem fa laa yem sama yoon nekkul ci politique gu politique sama yoon nekkul ci dóor gi sama yoon nekkul ci tappale gi ndax daf ma doy sëkk ni bis dina jot dinaa delluwaat tasanteeg moom te bëgg naa aussi mu xam ni donte meluma na moom donte awma ma xam-xamam donte awma njubam waaye lim ma bàyyeel góor-góoru naa si suma kemtalay kàttan jéem naa sàmmoonteeg suma ay nawle sellal naa suma jëf sellal naa sumay kàddu sellal naa sama pastéef ak sama taxawaay ak sama engagement jëm ci liggéeyal gi nga xamee ni yéene naa ko Sénégal yi te di si taxaw suba ngoon loolee moo ma doy sëkk ngoon su ma ko réussiree ngoon soo see jàppe naa ne victoire bu am solo la am et de lendemain ma takkuwaat gën a góor góorluwaat nekk ci yoon woowu et jàpp naa ne aussi noonee ma ko sama bàyyi jàngale noonee la ko bàyyi Sénégal yi nekk ci réew mi yëpp jàngale seeni doom le nit ku baax ku nekk bëgg taxawe dund kon nag li fi te nekk fi suñu bëggee njàngale yi yi sax fi suñu bëggee nit ñu il faut que le mag yee daawoon di dundee la mag yee daawoon di jëfe na mag yee daawoon di nañu doon xoole nañu doon xoole réew mi ñu ñaari mag a ngi ni indi nañu ñaari leçon yoo xamee ni lu tubaab lu sa xam-xam Sidi Haj Malik dafa ni dim ci politiciens yi bu len ko sañ yeen cote bu len ko wax yeen cote bu len ko man yeen cote serigne touba nafa an allahu bi barakati yi wax ni nit ku nek ci adina da nga wara xamé li nga momal sa bop li nga bok ak say bok ak li sa yoon ñaar to dajalee sen jangalé principe de démocratie de respect des institutions de la légalité constitutionnelle des choix que nous nous sommes donnés et l'engagement où. And en participation et avec inclusivité jëf ci li nga xamé ni mo yok Sénégal lolu soxla wuñu jéggaani frontière rewmi pour ko jàngi suñu ay maam ak suñu ay nañ ko ci ay exemple yu am solo te dëgg ko wacc sa mu fa di te di si bi ngeen ma may ci di ci di remercier euh, Ousmane Sonko mom mi nga xam ne moo di seen kilifa di remercier mboolem militant ak acteur Pastef ndax lii ci xétu générosité la bok am sa mbir yaatal ko ba doomu Sénégal yépp man ci am ciir am ci wàll je pense que c'est une bonne marque pour que ñu construire le vivre ensemble et que ñu construire Sénégal bi ñu bëgg Sénégal ki ñu gëm Sénégal ki nga xam ne day jóg taxaw dab Côte d'Ivoire raw ko ba pare nekk une puissance dans la CEDEAO et une puissance sur le continent africain yére ngeen jëf. Cheikh Bamba nga grand entretien pour Jotna TV ñuy am lol euh, di le sante di le gërëm tamit ci ni ñu dalalé xana di la nga ak ñi TV. ah rek bu invitation bi di fatali rek ni li fi wax ni yëpp bëgg rek Sénégal jëm sa kanam tax fi wax ni bëgg sénégalais bu nekk xam ne on est un grand pays et on est un grand peuple ndax suñu ay maam amul jaloore bu ñu deful ci àddina te réew mii nag c'est notre héritage en commun ñu ko dañ koo téye rek pour suñu ay doom ak suñu ay sët te loo xamee ne say baay ak sa ay maam dañ ko liggéey ba mu rafet jox la ko góorgóorlu rek ba bañ a mujjee sa bi yal nañu yàlla dimbali jàppale Sénégal musal ñu ci feebar bi ndax amuñu kàttan ak jumtukaay yu ñu ci taxawee jàmmal réew mi te dimbali sénégalais yi ba ñu ràññee te fëkk bañ leen yóbbu ñu vigilant ba ñi nga xamee ne wóoruñu ñu bañ a ànd ak ñoom te ñu am sago ak fulla xam ni lay développé nit ñi du boroom alal gu bare goo xamee ne mënoo justifier alal ji mais nit ñi nga xamee ni seen démb